gena bi dude yomba nonu dude muna ne kamoy ñu bari duñ dem ci politique because da nga dem ci politique di ci dega lu neka ak lu neka lo bu ta dega dal di ko dega because politique lu neka dang ko ci dega waye duñ ko ci muna bañ because so gisee ñuy ko sey waram na bañ duñ muna tok suñu keri di wax li ñoo bañ ba pare gennuñ wax ko fiñ ko wara waxe lolu mun ta neka